jërëjëf mbokki amateuru làmb yi jërëjëf mbokki internet yi seetaan wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sant bu ngeen ma gisee fi ma taxaw nga xam ne ñëw nañ fi nga xamante ne suñu kër la fii ñun ñoo ko moom fii ñun ñooy diriger ñooy bandi yi ñoo koy yëngal ki ñu fi woo nag Idaly ñu ngi la tudd promoteur bu mag bi euh, tournée tëgg fi journée bu mag boo xamante ni tournoi de lutte la boole fi ay xale yoo xamante ne ay champion lañ toftal ci ñeneen ñoo xamante ne ay champion la mais ñoom ñëpp ñëw nañ mbokk yi wolof nag def na tungu ne du teew ñu natt ci ëkk dañuy ñëw xool champion yi xool ni ñu dugg see xool nan la ñuy wàccee ci biir arène national gaa yaa ngi noonu. sëñ Basirou champion yaa ngi noonu toog ndeysaan Albarka Kayre Yankaaw Junior a ngi noonu c'est làmb jaa ngi noonu réparé déew ngi na le Yankaaw a ngi noonu waaye xolal ma làmb ji la mu joggi dafa mel ni ah, lii ah, weewu nag la weewu nag laay séen waaye daf koo joggi ma nga yor benn bant xànc ci loxo ba moom Yankaaw bi mu dugg see da ngay xam ni mobilisation bi ñi mu àndal ay kilifa ñoo ko wër mu lay leer ne am na cër boo xamante ni am na ko ci làmb am na foo xamante ne ay naataangoom teg nañ ko ko ci làmb euh, mu ngi noonu gis nga ko morso bu xonq bi mu takk ci loxo bi gis ngeen ko moom yankaaw mais ma nga yor benn bant ci loxo ba bant bi nag laa bëggoon xam bant lu mu doon waaye kenn mënu koo wax kenn mënut wax bant bi bant lu mu doon rek. noonu la demee waaye gis nga albarka ngi noonu albarka kayre moo sol lu rouge yi noonu yére bu xonq la sol ah te tubaab def na rouge danger la <laughs> wolof moo leen rouge danger la tubaab bi ko liggéey sax da koo ragal <laughs> ah waaw kookol ay albarka ngi noonu moo sol lu rouge gis nga la mu takk ci loxo ba moom it moo lay wax ni làmb lépp décor la réparé deux kookoy réparé deux rak la ci réparé ci armée wala Marley te yàlla man daal promoteur bu mag baa ngi noonu Idaly Gningue toog ak suñu suñu confrère Babacar ndeysaan caatu daaw dafa la ngi noonu xale la boo xamante ni ci tournoi bi la bokk moom it ey bàyyi leen ko xel caatu Daouda Fall école de lutte Berballa la nekk ndaanaan la ci làmb kenn du ko présenté rakiste fobeere xaw ma mélangé lan la ko ciy defatee <laughs> kooku mooy teq jël combat borom top 5 yàgg na fa de comme fa yóbbu ba tey ma nga top 5 toog di xaar de dana fa yóbbuwaatam déet loolu nag ca kanam la danañ ci xam dara lu yónni yàggul yàgg bawul dara. arène bi point com ah? wala arène TV <laughs> arène wasaare. albarka kayre caatu daawuda fall yankaaw ak asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah. waa àddina sax la ñuy wax parce que ñi seetaan bëri na ñu ngi leen di nuyu ak fu ngeen ñu mën a seetaane rek di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen fii ñu toog nag xam ngeen ko mooy fi nga xam ne nii mooy buntu arène bu ñu ko waxee nag suñu xel day dem ci làmb ki ñu langal suñu droite mooy idaali ñi ngi borom ñi ngi production moom nag moo tëgg benn tournoi boo xam ne ay xale da cee ne ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu kan Paul Maurice waaw moom itam yàgg nañ ko dégg ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di nuyu tamit ki toog sama droite kilifa gi tur bi Kaana Boy ah maa ngi lay bëggee kon yow américain nga maa ngi lay bëgg di nuyu soppe yëpp ak fu ñu mën a nekk rawatina ñu nekk kon comme États-Unis comme nee na Kaana Boy la te Kaana i des fois foofu lañ koy faral di gis USA ñu ngi nuyu ñëpp daal di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu idaal ñu ngi di nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy mbay Diallo mi nga xam ne moom mooy président wu ANAS maa ngi koy gis naa ko fi di nuyu waa Pikine yëpp parce que boo nee arène nationale rek dangay dangay da ngay xalaat Pikine xalaat Géejawaay nga jàkkaarloog golf nii di seen parcelle ne xam nga ay Dalifort kon ñu nuyu waa Ndakaaru yëpp di nuyu waa Sénégal tey nag jataay bi comme ni ma leen ko waxee léegi rek benn affaire moo am làmb waaye balaa may dem ci làmb ji tamit dafa am loo xam dañ koy waxal rek di jaalewaat sénégalais yi ñi nga xam ne ni dañoo duggoon ci gaal yi di dem Espagne ñenn ñi yegg ñenn ñi yàlla jël seen bakkan ñi ci faatu yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi yegg tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla la tax ñu bàyyi fii ba dem yàlla nañ fa gis lu kawe seen njort barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais daal xam naa ne du ñu benn xale muy dugg ci gaal déedéet amul lu ko jar pour man waaye nag na waaw am na loo xam ne daal boo boo ci nekkee ba dem ba sës des fois mu lay dugal ci yenn yi kon foofu dañuy waxaat état di Sénégal rek mu gën a veillé ci liggéeyu ndaw yi fexe nit ñi am liggéey wala boog mu accompagner leen ci la ñuy yëngutu moo xam jaaykatu caaf ba menuisier ba soudeur ba ak mécanicien ba ku ci ne métier ba mu nekk nga fekk ko ca dimbali ko ci te yàlla tax pour que jeunes yi mën a toog fii liggéey ndax nag moo gën ñuy dee ci géej gi loolu dara du ko jar di nuyoowaat wala boog di waxaat rek di leen rappeler li am mooy tournoi tournoi nag yàgg naa am defe naa ne ku ne yaa ngi fàttaliku Gaston Mbengue nga ko fi njëkk a def suma juumule ca ñoom Balla Gaye 2 ak yeneen ñoom Modou Lo ñoom Issa Pouye ñoom tafaatin ñu ne déet na waaye Luc Nicolaï def na fi tournoi waa waa RDV def nañ fi tournoi tournoi di continuer di continuer ba yaakaar naa bi ñu ci mujj a dund mooy bi Fallou Ndiaye mujj tëgg mu tudde woon ko euh, no tournoi ba tuddate woon mu daan TFP du moins waaw kon tournoi yàgg na am ci làmp saa yu amee na dina révéler ay mbër i daal ngi kon wàccul yoon wi yaa ngi dégg parce que tamit boo nekkee ci mbir olof na boo yokkul yaa wàññi defe naa lii moo indi tey bu nee tournoi la amateur yi lamb yi dund lamb dinañ xam ne ñii tournoi pire la ndax li tax mooy albarka kayre mii boo ko gisee ni ak gàttaayam ah bëreeg moom xam naa ne moom faw nga ñimi lu metti ndax lambam du du maanaam du maye jàmm loolu moom la Sénégal yëpp gis ku weddi gis nga combat bi mujj a bëre fii mook match bu way defe naa keroog dañoo defante defante ba xaj tëdd geen ba tëdd waaw xam nañ ko caatu Daouda faal mi mu jàkkaar lool moom tamit defe naa ne man dama ne parce que ma dégg ci tournoi bi ñoom benn benn mbër bu ñu wax ne moom moo ci man wax ma tur yi ba mu yegg ba ñëw ci caatu Daouda Fall ma ne ah nañ def ndànk parce que nag doomi mbër la te li ñu gis man li ma gis man mu di ko def ah mbër la moo xam ne daal yaakaar naa ne ku jar a bàyyi xel moom caatu Daouda Fall bi ci des mooy Kaaw Gourdé Mële moom itam dafa xaw a làqut waaye yaakaar naa ne ci niñ ko gisee mu di ko doxalee su continuer ci noonu. làmb ji am na ci cër te yaakaar naa ne loolu moom la amateuru lamb yi gis ki ci des muy yankaaw yankaaw moom defe naa ne moom it duñ ko présenté ndax li tax mooy ñun dañuy dugg ci àll bi ci mbapat yi te li may wax Basir mais xam na ci dara fekk naa ko Passy fekk naa ko ay dëkk yoo xam bu ma ko doon lim tey du jeex muy ñàkk tey tournoi di gagné ay nag kon kooku mbëru mbapat la te li avec frappe tamit gis nañ fi mu ci mujje digganteem ak kii toog nii muy euh, ah réparé réparé kon defe naa boobu tournoi moom. wala yooyu mbër defe naa ne kon defe naa ay xale yi ñu boole ku ci ne dafa am tracé boo ne am loo wane ñoom ñëpp moo tax tey idaal ñu ngi def lii kon li ñu ñaan daal mooy tournoi bi yàlla na yegg ak jàmm que le meilleur parce que yéen ñëpp ku ci ne rek yaakaar naa ne mérito nga gagné ko mais nag li koy gagné moom du ay wax du gàllaaj gu bëri mais entraîné la ak gëm li ngay def ak respecté li ngay def ak itam bañ a xeeb kenn parce que nag ku ci yëg sa bopp ci ndaanaan man naam ah bu bés bés ñëw nga maanaam ndaanaan nga wor la kon defe naa ne concentré wu da cay baax ca bés ba beneen combat boo xam dañ ko dugal ci biir ñu gis ko fii ñu toog muy teq jël teq borom Saalum <laughs> teq doomu ndeyu Ramdaan <laughs> teq moom xam nga teq moom benn affaire la teq mu ngi nii toog yorub kaanam yaa ngi dégg jàkkaarloog kan ak. Euh, réparé xam nga réparé des fois tuuti man booy remarqué rek laay bëgg a wax mais sama booy la réparé mu itam nekk xale boo xam ne wax dëgg yàlla rakku marle la waaye du rakku marle bi kese doyul dafa wane boppam ci bëre muy xale bu mën a bëre donte combat mu mujj da koo ñàkk mais defe naa ne dàq ko bëri dina jafe lool muy combat boo xam ne tamit combat bu nar a neex la kii nag ci ndam la mujj a jógee jéggi saraat la mujj a daan moom teqi jël daan dem mii kon loolu mooy li nga xam ne moom la idaal yi indi tey bala maa ñëw nag ci mbër yi damay njëkk a nuyu ki nga xam ne nii moom mooy idaal bi nga xam ne moom mooy initié bi tournoi kan moo ko xelal lii ak ñu ko jàppale ba mu def lii di profité nag di nuyu waa ñu ngi production yi rawatina groupe di nuyu di nuyu champion bi toog yëpp di nuyu assistance bi yëpp di wax ginnaaw bi di sant sama ñaari waajur di ñaanal sëñ Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi te wér di ko ñaanal Baye Jili borom léegi léegi di ko na ko yàlla suñu borom nangul lii commencé nañ ko ci jàmm ñu ngi bëgg mu jeex ci jàmm daal te am nañ ci yaakaar nag ne dina jeex ci jàmm. waaw am nañ ci yaakaar bu baax. mais kan moo la xalaatal bii tournoi nii ñeenti mbër yi toog nii. waaw maa ngi nuyu waa ñi ngi production bi yëpp rek rawatina ku mel ni Grand ku Paul Maurice Grand Paul mi toog Kaana ñoom Saliou Ba Abdoulaye Ndiaye mi may jàppale. bari na gaa yoo xam ne maa ngi ci 100 pour cent ñi ngi bi la nekk ñoom lépp ñoom la daal ñu ngi sant nag bu baax di wax ne daal ñi ngi seen ginnaaw seen rakk lañ ñu teg ñu loxo di ñu gunge bu leen neexoon tey amaana am na yeneen yitte a defee mais aw ma seen fay ñoom ñoom seen xalaat ak seen yitte daal ci man lañ ko def moo tax ñu taxawal lii nii. may kontaan nag ci mbër yëpp nag ndax kenn ku ci nekk maam yaakaar naa affaire bi yàgg na trop ci kàddu lañ tënkoon te kàddu yooyu moom lañ tënk ba suñu borom tey affaire yi teewee nii quoi may kontaan ci ñoom ñëpp nag waaw. naa ci yow laay mujjaat xam naa par rapport ak date yeeg ak noo ko bëgg a taxawaleeg yu mel ni ki noonu mais am na ñoo xam dañ fi toog Mbaye Diallo sax Mbaye Mbaye Mbaye Diallo Mbaye kaay parce que tamit mënoo jiitaanal sa ba pare bokk ci làmb yàgg ngeen bu mbër dëkk Pikine ñu fiy def làmb te duñ la ci laaj sa xalaat parce que tournoi bi yaakaar naa ne amateuru làmb yi laay wax de ñi nga xam ne xam nañ ñu ngi dun làmb dëgg-dëgg xam nañ ni bii tournoi moom ren ah dina bokk ci tournoi bu ñuy la parce que xale yu ko seq ay boroomi sañ-sañ xale yu mën a bëre macha allah Mbaye Diallo président ANELS waa di sama turando parce que Mbaye ak Babacar moom Mbaye Babacar Babacar ay mbay borom Pikine maa ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay fay. am nga jàmm. alhamdulilah. boo xoolee jataay bii ñu toog nii buntu arène nationale xale yi daal yi ñu ngi boole mu di tournoi jël teq jël daan dem boole ko ki nga xam ne moom mooy euh, réparé mi di rakki marle loolu loo ciy wax. bon li ma ciy wax mooy ñoom ñaar dama leen a njëkk woo ci discipline di leen wax ne bu ñu pratiquer sport duñu ay sportif. parce que làmb benn jigéen la bu bu ëmb bu ëmb. war a wasin benn doom moo xam victoire wala défaite wala machine mais nañ ko nangoo accepté te maa ngi wax ne nag képp ku ci gën a respecté entraîneur am yàlla na ko yàlla may ndam parce que je suis le président des entraîneurs. am na solo waaw je suis le président des entraîneurs xale yi boo ma la doon jàngatal tey ci lu gàtt rek ma dem ci tournoi ba la diggante Yankaaw ak Kaaw Gourdin bon combat bu am solo la parce que Kaaw Gourdin moom li ma koy dégg bari na di wax ne combat moom combat rek lay doon du wan a weesu combat di leen wax ne nañu ànd bokk ndey bokk bàyyi parce que promoteur bi nga xam dafa jël xaalisam investir ko bëgg xale yi bëre xale yi nañu am jom mu bëre di wax da tamit autorités yi nekk ci koñu xale yi nañu jàppale xale yi parce que ñoom bu ñu wootee yaayu xale yi ñooy jug ak papay xale yi ak magu xale yi kon seen bës nañ ci taxawu def ci lañ ca war a def jëndal xale yi billet may leen ay car xale yi ànd ak seen supporter ñëw di leen wax ne que le meilleur merci coach loolu am na solo message bi am na solo kon autorité ci koñ bi ku la nekkal ci naaj wi nekkal ko ci ker gi loolu la Mbaye Diallo bëgg a wax maanaam xale yi bu woote amee ñoom parent yaag mag yaag rakk yaag nijaay ñëpp a jóg ak bàjjen ya kon bu xale yi jógee tamit war nañ leen delloo nag la nga xam ne nii moom lañ jiwoon waaw loolu mooy li am léegi man damay ñëw ci wala ma nuyu Paul Maurice Paul faw mu nuyu ko parce que mënu fee toog Paul pussil tuuti pussil tuuti Paul Maurice sax man ba ma xamoon mooy ba dëkkoon Bicol wala xëy na ñaari Paul la am Paul Maurice borom fecc mu neex ma le grand champion ñu koy nuyu di ko ziar maa ngi lay nuyu Paul Maurice numéro 2 laay wax de wala. waaw sëñ Babacar lay fay. waaw ah, ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi ah, di sant ñi nga xam ne ñoo fi toog vraiment di sant aussi ñing bi nga xam ne tey moo taxawal ko mbaay di sant nag staff bi ñëpp ah, parce que aussi tamit di sant waa mbër yi ak ñi nga xam ne ñooy yor mbër yi galan bi ba mu taxawee yàgg na mais vraiment ku ne gis na li nga xam ne moo fi jaar muy coronavirus bi. di ñaan yàlla mu génn ci réew mi vraiment ñu di ay góor te a nanoo def leneen teewul danoo xaar kon li ñuy wax mbëri rek di leen ñaaxaat ñu gën a góorgóorlu di respecté lii di signature de contrat yi di respecté li nga xam ne promoteur bi moom la seq ak ñoom parce que ñoom it li nga xam ne moom la seq ak promoteur promoteur mi ngi ciy góorgóorlu kon dañ leen ci encouragé ñoom it ñu gën noo jàppale ba lii nga xam ne moom lañ jublu yàlla suñu borom génn ñu ci ak jàmm ak di leen wax nag ne tournoi bi que le meilleur gagne waaw que le meilleur di leen wax ne képp koo xam ne bii ne ñi ngi ci nekk yaa ngi góor góorgóorlu wane sa fulla ak sa fayda ak li nga xam ne moo tax promoteur di tëgg làmb ñu gis suñu bopp su combat bi jeexee incha allah mën naa fa tout noir bi jeexee da ngay amaat combat ci saison bi bu dee ci noonu suñu kaa di waaw di leen sant di leen gërëm comme guddi na vraiment di la sant aussi di sant presse bi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp vraiment am na kontaan ci yéen ndax woote ñu wuy si leen yombul surtout yow nag ah merci ok rafet na. jaajëf loolu la Paul Maurice wax wax na dëgg kon mbëri na ñuy gën a respecté contrat yi rek ndax it ki nga xam ne nii ah moo lay jox wecc tam ngeen seq liggéey defe naa ne saa yu la wooyee rek war nga ñëw wuyu si ko ngeen def la leen contrat la leen lié après ku nekk dem sa yoon jàmm na ñooy quoi loolu moo a wóor euh, réparé maa ngi lay nuyu di la ziar man xam naa damay jóg taxaw sax de waaw du mën a ñàkk réparé kaay teq cay teq waaw gàtt nag de idi ma jege si a ah. teq xam nga teq daa bari bagage <laughs> réparé moom boole wu ci réparé moom réewut kaful dafa fas kanamam waaye teq daal mu ngi muñ xam naa dañoo bokkul li ñu yeg ñoom ñaar yeg yëg yeedul benn xam nga kii daa am ci lu mu jóge te xam naa ne bor boobu la bëgg a fay waa géej a way kii nag it am na ci lu mu jóge te yaakaar ne day nooyaat xam naa kon loolu moo tax mais bu ngeen xoolul caméra yi du neex wala ma bàyyi leen ngeen a ah, xoolante leen ba tey ñaangul de <laughs> man de teq ak réparé <laughs> <laughs> réparé maa ngi lay ziar man nag xamewuma woon ci façon bi quoi. dëgg la da ngay damay gis nga sourire mais tey dama gis rek ñëw nga aj kanam gi quoi. non damay bëre ku bëri wax quoi moo tax. <laughs> daa bëri wax. <laughs> lu tax nga ne daa bëri wax. daa bëri wax rek yaa am nga wax ju warul mën a bëri da ngaa dégg wax. a bañ sant yàlla julli sant bi xam nga di sant suñu ñaar waajur. Uh-huh. am jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jaroo rek moom Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf Serigne Sall sama yaakaar teeg ëllëg jërëjëf di Serigne Saliou sama yaakaar teegal ak xam nga di nuyu mbëri fi nekk yëpp di leen siyaar di jox ku nekk sa wàccuwaay di nuyu promoteur di nuyu suñu père xam nga di nuyu tamit grand promoteur di nuyu samay entraîneur xam nga sama staff yëpp maa nuyu di leen siyaar di nuyu sama maam quoi. sa maam. peq hmm. mi lu ko def sama. sama maam ki jamono dégool la. <laughs> dégool tubaab bu yàgg ba. Hmm. jamono déggal la quoi. réparé li ngay wax doy na waat mais mais yow kii danga ko njëkk a accusé nee nga dafa bari wax ñu ne déet na waa ngeen waat sa maam la waxam ju bari daa yegg si ci yow wala daf laa wax loola naqari wala. non kii kii mënu ma wax lu ma naqari man sportif la lan moo la xamal bëri waxam. non déggoo ma de wax da ngay bàyyi ba mu jot nga wax su waroo wax. lu mu wax moom. non kii amul amul fit bu taxaw war a wax ci man. amu ko xam la moo tax Babacar tey. su ma la déggee ngay wax ak keneen di wax yenn wax yi. ma xam ma xam ni nga mel. suñu waree wax du ma la bàyyi nga wax si man. Hmm. yow nooy def. kii li may def. waaw arbitre mu jàpp du ko daan. kii neex naa du ma kii nii. kii sama maam la. kii kama mag kaka mag kaka magaa sax moo ko mag. moom teq mi. mooy yo kii kii di maam nga nag kii jamono déggoo la laa la wax. yow ñaata combat nga am maa ngi cinq combat. ñaata victoire. quatre victoire benn défaite. benn défaite rek nga am. Hmm. ban année man est-ce que daa mel 2018 dimanche 2018 xam nga daal 2000. xam nga waaw côté yooyu la daal. kon de yàggoo ci. Ah. ay ñaar rek jàpp ñett yow. waaw 2018 la daal. nga ne sa maam la. non non le le 6 le 6 août 2017. après waaw 2017 waaw nga de yaa ci 3 hmm. ans de carrière. Hmm, ci laa dugg quoi. sa waay daal wax ji nga bëgg euh, dindi daal. kii <laughs> yaa yàlla bëri daal. teq teq maa ngi lay ziar teq sa waay teel naa sa kaw de. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi wala xawla wala xuwwata illaa billaahi al azim ginnaaw ma sante yàlla julli ci yonent bi maa ngi sant suma ñaari waajur di sant suma yaay di sant suma yaay di sant suma papa di sant suma bàjjen di sant axlu làmb di sant promoteur bi taxawal làmb ji waa di sant sunuy coach su ñëpp ñuy sonn ci ñun di nuyu Aliou Téré bi ma àndal Ardo ñaari yaar numéro 2 waa non kii day tiit di wax. day tiit day tiit di wax. kon daa waa di sant suma sëriñ laa Cheikh Ibrahim di wax marhaban bikum Cheikh Ibrahim xam nga day tiit di wax. kii day tiit ba kii pareegul sa ci ay daanu. pareegul ci daan non non pareegul. <laughs> kii des non waaw day tiit gis nga mbër buy tiit doo gaaw a yeewee xam nga kii na man damay wax te musu wax ci moom kii bàjjanam sama koñ la dëkk parcelle. musu ñu dajante maa ngi parcelle. ubbi naa salle de sa koñam géejawaay mafia bi koy diriger man sama samay fils lañ sa waay bu neexee mu ne man maamam laa bu ko neexee mu ne man papam laa mais dinaa la war rakiste la ménage fobeer saale waale yaale waale ba nga naan papa téex baal ma déggoo ma ma lay duma neexal di la génne sàddi. delloo départé goo ma de. nga ko lan. kii dama koy duma di ko rakise menacé fo beere. saale waale yaale waale naan papa teex baal ma wuy papa teex. li nga na ko waar sax kii nii. kii magam sama mag moom lamb la a dire dama ko may loxo rek pour xam nga mu nekk moo tax tam sutura ko quoi dafa bokk ci lamb parce que magam mbër la te xam nga am na nu mu demee quoi ni ko waxee. yow man maa ngi ciy 6 <laughs> kan moo fi daan ak ku dul Mayakor Mayakor moo fi daan bu daan ngeen vidéo nga génne ma ne du ma di commentaire yow xamal nga nga lijjanti sa boobu yaa may dégg barki Cheikh Ibrahim boo dëggalee sa du yàgg boo dëggalee sa hmm. du yàgg amoo doole fii du pour maye gannaaw ay maye kat dafa ñëw eh, eh. eh bu doon déglu ma rek lamb ubbeeku xam na ah? yaa ngi si ma néew ba ma rek Babacar ki a bandi déglu ma rek barki a wopp a dee amuñu nar benn yabooy ngay teg sandi job ko déglu ma wax kii bu ma wooy ci ruxu ma duma ko ba jàngal ko bëri kii amul sax bandi kii du bandi li nga wax dégg naa ko léegi dama bëgg ngeen waaw dama bëgg ngeen seetaan léegi xam nga am non xamul ndax booy bi dama ko nawoon déglu ma rek dama ko nawoon quoi kii bu ma mënut a wax moom waaw d'accord non waa koñ ñu ne ma yow yow wax lii nga am waxuma yaa wéyli de yaa wax li nga am yaa wax li nga am ma ne leen booy bi dafa ma jox cër quoi ma bàyyi mu seet muy wax ay adversaire bu baax adversaire koy sant di ko gërëm na ma ne suma kanam laay wax li ne suma kanam incha allah te ci kanam koy jëli ne ko suma kanam de mën naa may loo xam nga sa ko nuyu en passage ah dëgg may déglu mënoo maa jaxase ak nit ñi laa la la won du ma sa morom naa la duma naa la daan ku ne yaa ëpp doole téex da lay nax amoo doole booy liggéeyal sa état kawman bi amoo doole sa yetta yow <laughs> yow ngay mel ni mbuusu ndox bu fàcce nga naan ma fii la xarek bëy maa la bu doole fuuf léegi léegi neex na dama diri mbaal bëri bëri maa la bu doole maa la mën daax laa bëri si doole mu ne laa lay tegal tex dégg nañ la gësëm waa tex c'est bon dafa dof lii neex na xam nga la moo tax neex na léegi da wëyu leen ma tex tex wëyu ma tex tex nañ déglu kii bu mu amateur la bu mu amateuru tefes yeew waaw man li a moom mel ni quoi booy bi daa tiit waaw xam naa yeew ci nelaw eh daa may dégg xool ma wala moom mbéj nga may ne ko di gént de si dir nga nekk non gi day réefé waaye ki naan ay ranga bëri non non non waaw day ne prip ama 30 secondes doo ma dégg ma ba nga waaye tex sama waay ngay itam déglu may itam ma déglu merci ah, yow itam déglu may nag tex ñu mën a avancé ma yëngal nelaw mu way yee lamb ji ubbeegul yow ma la jàppee yow waaye tex s'il vous plaît yow tamit bu may ñu dañoo bëgg léegi ngeen tàggoo ku dem toog ñu joxante rendez-vous parce que yéen moom coow li ko jar jarul xeex ci benn waaw jàngal ko boxe ko ñoom laay entraîné xam loolu baax ara jàll mbaas waay yow sala fa la nekkoon su ma jógee foofu laay ko ñaay yaa may dégg voilà non non mais fii xam nga rek fii mooy loolu ci bandi naa ko jàngal kii xamul sa nu mu demee yow barki Cheikh Ibrahima yow si boosa na ko waaree ah waay yéen teq mi métti na de. dafa ma dafa ma mel. waaw teq mais s'il fi di mbéñ mbéñ naan sama maam ah, man laa la ma dee maam. teq doo dégg xale bu ndaw bëri doole ah tool nu ma neex laay toolu man dew ma États-Unis dew ma fenn Gambie mooy sama États-Unis Babacar ah wax. waaw mais teq non waaw mais kii di làmb. Babacar ñun ay mbër lañ. waaw est-ce ma dégg. waaw ñun ay mbër lañ. en même temps ay ay de voix lañ. ñun yor ñu esprit mala quoi comprend bu baax ay nit ñoo ñu seetaan dañoo dañoo war a ànd ak yar ànd discipline isaan bi dégg su waxee dama koy déglu su nit ñu war a waxee da leen war a déglu quoi pas ñu nekk fii mbër fu ñuy fu ñu dëkkal bu ñu fa dëkkalee dañoo dëkkal waaye da nga may déglu rek dañoo dëkkal dañoo dëkkal mbër yi dañoo dëkkal mbër yi ay dof quoi est-ce que amee dégg dañoo dëkkal dof ñun duñu dof ñun ay noobu lañ est-ce que amee dégg ñun ay noobu lañ quoi dañoo war a wane ay bon exemple pas nekk fii di ratata yi wax yu amul sens. comprendre bu baax waaw léegi léegi léegi. waaw leen di wax léegi xam nga

mais bu nekkee di yàq der naan ay seega c'est-à-dire non amul problème waaw di waaw di encouragé di la encouragé di encouragé tous les waaw ñu ci média bi Modou Anta xama Omar Saliou borom waaw ñoom yam waaw ay ñoom Babaye ñankoog ñoom jili jili mbër la woon sama génération la mais daa bàyyi bëre bëre la doon def nag da doon takk sànni. jiili mais billaay wallaay. di cher ñëpp. ba bés la fa demee. lo waa di woo waa Thiès. waa Casamance xam la di woo waa Thiès waa Casamance waa Mboro Noto Bono Kayar xam nga di woo bépp mboolu mbaal fu mu nekk di woo waa Kafountine waa Cap waa Batara maa ngi woo di jaaree capitaine Saram xam nga di wax gësam a gësam gësam waay loolu lambe gësam waay faaru mbaaw waay si gëla waay jéggi sirat waay maa daan gësam waay le 21 waay décembre gësam waay laa ko gësam waay réparé gësam waay amoo sens ma la yow salabaar laa ne du ma la sax nga matal nga toogal toogal toogal toogal waaye yéen waaye nag loo ci mën a dégg daal ji moo daan tàkk lu mën a xew làmb ji xam naa dana neex ndax sa waay mii sa waay mii moom man de teq mii teq daal xoromam la andiwaale moom saf na xorom sàpp de looy tàggoo ak looy wax promoteur bi. waaw promoteur dañ koy encouragé xam nga di ko nuyuwaat waa di. naan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg aussi tamit di di jaare son entraîneur quoi Boy Cham soxnaam dafa wàcc quoi c'est la première fois mu xam nga jàkkaarloo Kémara te war na su mën a jaar bu baax di sant waa Guédiawaye xam nga di sant waa Mboro aussi waa Noto Taïba Ndiaye Taïba Mbaye Kër Malla Minam xam nga di dem ba suñu dëkk di sant waa Laañaar comprends nga tund Bawol yëpp maa leen siyaar bu baax a baax a baax kii non Idaly Idaly lii maa la ko wax gis nga combat bii bi yéen a ko sécurité est-ce que am dégg li tax ma ne na ko sécurité moom mii nii nii si tànkoo dellu avance yi si la ne est-ce que yaa ngi dégg <laughs> sama kër bàjjen boobu muy wax ah. est-ce que nii instant yii wóoluwul boppam. est-ce que nga xam ne dégg bu baax instant yii wóolu wóoluwul boppam est-ce que nga xam wuy ma mburu foofu ko fëriñ waaw mburu foofu ko fëriñ moog sama papa ñoo bokk ndey baay ah. est-ce que kon kii instant yii ay wax mu ngi yëgal di ñëw si woon tant que dara avancé la nekk man damaa gëm sama bopp est-ce que nga xam ne man dama man dama bopp man géejawaay laa dëkk est-ce que nga xam ne dégg géejawaay laa dëkk fa laay yeewoo fa am benn man ku may doxal combat man ku may doxal komba da ngay laaj waa géejewaay man géejewaay gi ma dëkk bañ nangu du ma dëkk parcelle di ñod di waa Thiès da nga may déglu booy déglu ma du ma dëkk géejewaay. waaw a léegi sama wuyu leen ay mbër fi toog ñii ñii tamit ñeenti mbër lañ ko wax dañuy wax jàpp nañu si waaw damay sant sama entraîneur. waaw non joxante bu baax a baax a baax di sant ku ci mel ni Ibou Ndiaye xam xam nga di sant fu may liggéey participation bi maa leen nuyu ñoom ñëpp. am na solo bu baax baax baax comprendre bu baax baax. man géej laa dëkk damaa gëm sama bopp gëm ma waa Thiès géej laa dëkk baax léegi c'est bon. waaw waaw loxo waaw. xool sa loxo nii bu ma la joxee loxo da ngay damm maa la bu doole bu ma sama loxo gis nga loxo nu mel damaa koor am yii